Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net. Alhamdulillah. ay doom ak sa ay rakk ñoo fi ñëwoon dajaloo ñun ñii ñëpp ay doomi soxna ñu jóge ci kër diine yi wuute kii mu ngi tudd soxna Seyna bu Njëgën mu ngi jóge kër maam alaaji maam alaaji Njëgën moom mooy présidente en euh, euh, présidente nu mu tudd conseil d'administration bu Train Bleu moom la ko président Macky Sall dénk muy jigéen ju baax kële soxna Ndey Mbàkke la tudd di jarbaatu sëñ Modou Kara yaayam ak sëñ Modou Kara Mbàkke ñoo bokk ndey ak baay kii di sa rakk di soxna Umu Si bu Alaaji Abdou Aziz Si Dabaax euh, soxna siy toog moom mooy yaay Mbàkke soxna yaaram yaaram Mbàkke moom mu tamit nekk suñu way jur nekk ku baax damay xala fàtte turi nag ngeen di ma dimbali euh, soxna si soxna Aysa Li la tudda kii soxna asukan waaw kii mooy sëñ Baara Dolli Mbàkke moom mooy président bi nga xam ne moo jiite njaboot gi ñu àndal ñun ñëpp euh, sëñ daam sëñ du Njëgeen moo toog ni Mouhamadou Lamine Njëgeen waaw waaw moom la jox ndigal li waaw kii sëñ Aline Diouf bu euh, làmbaay la jóge moom tamit kii sëñ Aliou ja bu Tëngéej imaam ratib Tëngéej yaakaar naa ak Cheikh Tidiane si mu Baye Dame si mu Koungheul am na ñeneen ñu bari ñoo xamante ne dañu waroon a ñëw waaye ñu am ngànt nekk mbooloo mu takk moo xam ne ëpp nañ deux cent et quelques personnes ndaxte sëriñ bi li waral ñu jóg dama koy résumé rek waxtoon nañ ci ak Cheikh ba pare euh, dafa am ay doomi Sénégal yoo xam ne dañuy jóg taxaw tudd maam Cheikh Omar Foutiyu Taal radiallahu taala anhu te ku tudd maam Cheikh Omar rek tudd nga magi Sénégal yëpp mais du yam foofu day tudd mag ñi kenn par kenn ba ñu jeex mu tudd seen ay wayjur yu jigéen tudd seen ay wayjur yu góor génn ci làmmiñam loo xam ne yéefar bi gën a ñeme yàlla ci àddina sax ñemeñul def lool tubaab sax du def lool tubaab du saaga mukk loolu bi ma jotee yëf yi màkk la ma fekk dama demoon aji màkk ànd ak Baye Samba Diagne góor gi Samba Diagne bu Sanaar maak moom ñoo nekkoon sëñ bii Mbàkke di baara dolli ak sëriñ Sam Bousso ñu yónnee ma ojo yi ak sëñ maam xaadim awa ba bi ma ko jotee dama doon jooy ba sëñ bi jaaxle ne ma lan ngay jooy ma ne ko ah man de li ma dégg dafa ñaaw te ab sénégalais ka def mu ne ma bul ma ko wax bul ma ko jottali ma ne ko papa foog ma jottali la ko foog ma wax la ni ma ko yëgee foog nga yëge ko noonu ndax ni ma naxaree mu naxaree la ko ma daal di ko ko tegal ci noppam mu déglu ñaari seconde rek mu ne ma kuppeel mu dal di jooy moom tamit euh, xalifa bu tedd bi Thierno Madani lii ñuy lii ñu yëngal ba ñu jóg ñaaw na bépp ñaaw yónnee naa ko sama benn xarit boo xam ne katolik la ma ko yónnee ma ne ko déglul ojo yi ban effet lay def ci yow bi mu ko dégloo ñaari mënu ko déglu benn la déglu mu coupé mu woo ma ne ma Ibrahima mu ne ma mu ne ma lii yéefar bi gën a bon sax du ko def lii man mënuma ko déglu lii c'est trop dégueulasse man jël naa téléphone. fexe ba woo kooku ba jot ko mu ne ko sëñ bi mu ne ah ma ne ko lu lan la la suñu maam yi def ba nga leen di saaga ak wax yu ñaaw yi ngay wax ci ñoom yow xam nga kuy maam Cheikh Umar Foutiyu Taal radiallahu taala anhu xam nga lan la liggéey ci Sénégal ma ne man sama maam Seydina Limaamu baayam maam Alassane dafa àndoon ak mbooloo mu rëy dem euh, seeti maam Cheikh Umar di ko jàppale ci jihaad ji bi ñu ñëwee mu ne leen yéen ñibbi leen bugg leen bokk ci jihaad ji ndax ki jur limaamul mahdi yu ci yéen ñi la nekk su ngeen ñibbee yéen ñëpp di ngeen am doom yu góor ku ko ci am na ko tuddee limaamu turu limaamu ci sa làmmiñu maam la génne mag ñi bi ñu ñëwee ñoom 14 lañ woon 14 yëpp am doom 13 yëpp génn àddina maam limaamu laay rek moo ci dund ba jur njaboot ba tey jii maam Cheikh Amadou Bamba noonu maam Seydil Hadji Malick si mu jox ko tarixa bi mu liggéeyal Sénégal liggéeyal monde bi loo xamante ne kenn mënu ko fay maam Cheikh Umar nga boole ñooñu ñëpp di leen di jaar fi nga jaar sëñ bi yow li nga def ñaaw na ñaaw na ba fu ñaaw yem tooñ nga ñu bari te lii buñ ko tasaaree ci dëkk bi suñu taalibe yëpp dégg ko dina am guerre civile ci biir senegal mais nag jun alhamdulilah ay nit yu mat lañ te dañoo am ay kilifa duñu digal mukk nit naan ko jógal nga dem rey nit walla nga dóor nit si mbedd mi ndax xalifa yi fi toog. ñooy sunuy baay ku nar a dal seen kaw nag dinga ñu rey ba pare door a yegg ci ñoom. ne alhamdulilah yow mi doon wax léegi jërëjëf ne kii waa ki ko wax waa ji wax kàddu di nga xam ne rafetul baaxul cer ne jërëjëf si moom. ne tax na ba ñu ñëpp ñu gisante suñu biir toogo ne loolu nag sant yàlla. ne mbir nga xam ne day metti ne bu amee si bu xamee si bu xewee si yow rek mu metti ne bu yàggee nag mu wër ne lépp la nga xam ne dal na la rek mus na dal keneen ne tabbat li taxoon mu wàcc ne ay kàddu yu rafetul kàddu yu ñagas yi nga xam ne moo wàccoon si li ñu waxoon si yonent bi sallallahu alayhi yàlla suñu borom wàccee tabbat yadaa abii lahabin wa ilaa aaxiri aaya al-balaa'u baax yi ne waxoon nañ si ñoom kàddu yi nga xam ne tegginiwul waxoon nañ si ñoom kàddu yi nga xam ne tegginiwul ñi tuumal leen tamit li nga xam ne teg seen der li nga xam ne du dëgg ñi wax leen ay kàddu yow yow sa bopp ba léegi doo bëgg a déggu kàddu yi ñu leen waxoon ba léegi nii nee loolu rek moom moo ñëwaat nii moom moo laat lii tey nee nag bu dalee sa kaw nag saay bu dalee sa kaw heure bu mu dalee sa kaw rek mu metti la ne bëggoo sa nit sa sëriñ wala sa diw bu baax ñu wax si moom li nga xam ne naka sudul noonu ne mu fekk nag li nga xam ne moom li ñu wax si moom sax amul si moom nekkul si moom Ceerno ne ngeen jëf ne ne li ngeen def nii daal lu baax la ne initiative bu baax la ne mu ne institution am na président wax na président république sax boo ko waxee naka sudul noonu loi bi joxee lañ jàppale ñi dóor la wala ñu tëj la ñu yar la ne même bu nekkul président sax ne même bu nekkee nit simple buy dem si mbedd sax ne boo ko tooñee lu dul dëgg rek ne yoon war na mu dal sa kaw rawatin nag waxul nag rawatin nag ñi nga xam ni tudd nga seen tur léegi nit moo kilifa diine yu baax yi mag ñi ne ñoo ñooñu gënal lépp ñi li ñu am waaye amul nag fii luñ fi wax luñ fi waxul woon ne yonent bi nañ ko ay soxnam saaga nañ leen ne ay kàddu yi teggul teg nañ ko seen kaw waaye loolu nag taxul àdduna bi jeex taxul tamit lislaam bi dox di wéy waaye nag ne bu ñu waxee si ñoom ñoom ñii ñi wax ne li ñu waxoon si seen yonent yi ne la seen mot moo toy seen doywaay moo toll noonu moo tax ñu wax ko seen seen mot waaye nit nag bu tooñee sa waajur nga ne ko rek demal bàyyi naa la yàlla mu ne déedéet du noonu ne du yow mi koy déglu du sa motaande Thierno ne ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ne li ngeen def ni fardu kifaay la wala wala sunna kifaay wala man duub kifaay ya ne lu tànk yi ngeen taxaw si tànk yooya ngeen taxaw ne bu ne bu amee ñu taxaw rek ne mu mu mu mu wàcceeku si ñeneen ñi. waaye nag mbir mi seen mbir la suñu mbir la comme que taxaw ngeen si nag nit ñëpp ñoo si yem kepp lan la ñu mën a wax rek mooy ñiñ ak yéen ñoo ñoo ñoo ànd ñoo bokk xeex bi ne boo si taxawul woon nit ñi suñu bopp ñu taxaw dem taxaw si comme que waaye taxaw ngeen si li ngeen si mën a def ne doy nañ ñiñ képp ne fépp ngeen si dem. nit ñi nag yéen ñoo ñoo si ànd nee na ngeen dem ak seen xel ak dal ngeen dem tamit si yoon ne ñi ak moom Thierno ak yéen ñu ñoo bokk xeex bi ñoo ñoo ànd ne fépp fu ñu si toll rek moom mu yëg ko alhamdulilah Thierno Cheikh Tidiane bu Thierno Mountaga moo ngi nii Thierno Hadi bu Thierno Mountaga moo ngi nii ne ñi ñëpp ñoo ngi nii waaye ñi mun nañ leen ceer mu def leen ay délégué ñoom ñu ànd ak yéen ak programme lépp lépp ne incha allah ne ñoo ngi ànd ak ak yéen incha allah yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla jàppale.